dëkku xam-xam dëkku leer dëkku cosaan waaye dëkku kilifa muy njare njare njare fu ko gis waxtaanal ak moom ci xam-xam ndax suñu borom daf ko koy dénk loolu tey ñu seet si kenn di sëtu sëriñ Daaru Assane Ndiaye di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall muy kan sëriñ maam Cheikh Ndiaye njare jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal jëmm ju ñu leen seet si laatal tey génnoon na fi defoon fi ay révélation génnaat fi assuré woon garanti woon victoire u Sénégal génnoon garanti woon beneen victoire mbër tey leneen la ñu bëgg a garantil ci réew mi leneen la ñu bëgg a assuré ci réew mi ndax nee nañ ko sëñ Cheikh Ndiaye Njare am na lu mu àndal ci biir buy wax danga naan leneen ay wax buy programme mbir danaan incha allahu te bu suñu bu soobee yàlla la mu programme day dëppoog la suñu borom namm lan ma ko may loolu dinañ ci waxtaan ak moom waaye danañ waxtaan ak moom ci actualité dama seetlu ni Pape Djibril Fall dafa yóbbu caution am Ousmane Sonko yóbbu caution am ñaar yooyu ban moo ciy jàll kan moo ciy dem. gis naa ni Bassirou Diomaye fay parrainage yaa ngay wéy di dem jot naa ci weewu bay ñu ni dañ koy téye Amadou Ba ca wet ga yóbbu 4 millions parrainage nee na ñu itam mënta ne génn nañ ñu bëri weddi ko ba ci Cheikh Yérim Seck balaa ñuy daaneel rek dañ waxtaan ci. oustaz Omar Sall mi nga xamante ni ma nga woon tribunal ba jamono ji ni wax ak yéen ci loxo juge bi sëriñ bi am na jàngat wu rëy bu mu ci def waaye waxtaan ak moom ci Gris Bordeaux mi nga xamante ni coow dafa jug dal ci kawam muy ñaari yoon ci benn at ndax coow na daloon na ci kawam ñu naan dafa seet si président de la république ba jël xaalisu mbëri ak mbëri yee ko dal mystique gee këpp ci kawam wala tuuma sax lañ narat lañ war a teg ci kawam est-ce que du piège lu ci mënti dañ koy bàyyi moom sëriñ Cheikh Ndiaye Ndiare mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan cheikh bi bismillah aasubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wal xasri inna linsaan la fi xusrin illa lasina aamana wa xaamilu saalihat wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabri ginnaaw bi ñu sante yàlla julti yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan si Muntaxa Basiiru mu yàgg fi lool ànd wér di ñaanal laat kullukum di ñaanal mbokk Sénégal yëpp di ñaanal sama maam ja Cheikh Daara Assane Ndiaye yal na yàlla suñu borom yokk ay leeram tas ci barkeem di ñaanal Ibrahima Fall maa ngi koy ñaanal yokk ay leeram tas ci barkeem di nuyu mbokk Sénégal yëpp di nuyu àll Sénégal Lamine ñu ngi lay nuyu baax di lay ziar. Mhm. donte que mi ngi bëgg a yàgg waaye duñu ko mës a fàtte bi ma koy doog a gis ci say loxo la nga def seet ba def seet ci seetu nga ni ni may gisee seetu bi di gis sama xar kanam bu ma tëfli li may tëfli def ma ci def li may def noonu laay gisee say mbir lépp ci seetu bi sëñ bi seetu seetu seetu seetu maa ngi ko fiy doog a gis. waaw Lamine seetu seetu nag moom day nekk loo xam ne xam du doy. Hmm. waaw toujours ak lu bees li ngay li ngay li ngay li ngay jëfandikoo. waaw lii nag xam naa léegi ma yàgg ak moom. waaye peut-être da nga koy doo a gis. Hmm. waaw seetu seetu nag fépp waaye man di tool fu ne ci kàttan yàlla suñu borom. mën a laa xoolati li gis say mbir incha allahu rabbi waaw liñ siy xool moo xam muy gudd moo xam muy bëccëg heure bu ne tout le boo ñu woowee rek ñu am temps incha allah rabbi suñ si xoolee dañ si gis say mbir mm-hmm. waaw seet bi nag tey naa si def benn ndimbal fii ba la fii ba la 24 ci kat yaa suñu borom fii ba la 24 décembre waaw naa si def gratuit boo xam ne képp ku ma woo mën naa laa xoolati gratuit waaw incha allah rabbi loolu naa ko may mbokk taalibe yi suñ Cheikh Ndiaye Ndiéré bala 31 décembre bala 24 décembre. bala 24 décembre incha allah rabi képp ku ma woo amut fay dinaa la xoolal te garaat yow dafa la ko ndimbal rek te yàlla tax laa ñu ma kenn benn dërëm. incha allah waaye seet bi moom nekk na seet boo xam ne incha allah rabi soo mu waxee sa tur. ak sa turu waajur wu jigéen ci kàttan yàlla suñu borom incha allah rabbi fi ma toog laay toog gis say mbir te seet bi lépp lu mu si mën a doon looy mën a dugg suba ba ngoon incha allah rabbi kii dama ko kii dana ma ko wan. Mm-hmm. incha allah. sëñ bi Senghor. daan nga ko jox mbër mu ngàlloo ko daan nga ko jox mbër mu ngàccoo ko daan nga ko jox mbër mu takk ko te Senghor gi ma gis nga yor ko fi dafa mel ni du pour mbër pour nit ki ajoom la. waaw Senghor gi nag bokk na ci li nga xam ne maanaam secret njare la. waaw kii mën naa kaa tudd Senghor ak njare. Mhm. waaw ndax du yëfi xale. waaw kii nag ñaa xam ne sama mbokk yi nga xam ne ay commerçant lan ak ñaa xam ne ay businessman lan mm-hmm. ak ñaa xam ne dañuy génn di faral di yor njaay yoo xam ne dañ koy faral di nangu wala ñuy faral di yor loo xam ne dañ koy ja dañ koy jàllale dëkk dëkk ba ñu gis leen wala ñu téye leen mm-hmm. te kaat yaa suñu képp ku mu ko jox ba nga takk ko sa ndigg li amul sa dara loo xam ne man man mën nga kaa yor ngi nangu ko mm-hmm. te amul fenn fu ñu la mën a téye wàllum yoon tamit mënul dara te yow ak fooy man di dem bagage booy man di yor tey jii moo xam fooy man di nekk nga bëgg kaa jàll dëkk dëkk bañ ku la gis wala nga bañ si am ay jafe-jafe wala nga bañ coow topp la jotol jotol si ngoor gi fooy man di tool waaw fooy man di tool incha allah bi la nga li nga yor dana dana raw te kenn du du la mën a téye rawatina wàllum wàllum yoon te kàttan yaa sunu boom kii mooy si ngoor gi am na solo lool mm-hmm. loolu lay dox. da ni góor yaramam day dëgër. deram day dëgër te tul mënta ñàkk ci góor nga tekki sa gàlla tekki tul sax bi nga xamante takkoon nga ko jam sa bopp duggul tul gi moo saf ci yaram bi wala tul bi moo original ba boo ko tekkee day def efe waaw tul gi heure boo ko takkee rek maam noonu noonu lay demee. Mm-hmm. waa day dem maa xam ne sax day des day des sa yaram. Mm-hmm. ndax ndomba tey jii ndomba gu baax dëgg-dëgg soo ko takkee mu man ñeent fukki guddi. su dee su dee jàpp jàpp na su la neexee mën ngaa tekki tekki. ba hmm. ëllëg fooy mën dem tamit de gàllaaj day ànd ak yow xam ne soo tëkk ndomba gi day day day ànd ak yow waaye ndomba gu baax dëgg-dëgg hmm. wóorta mën a passé ñeen fukki guddi su passé su passé ñeen fukki guddi su baaxee mën ngaa gas suul ndomba gi hmm. ki yittu loolu lay dox waaw ak lu mu si mën doon lu ne ci kàttan suñu borom soo ko takkee dara loo xam ne day jame du la dugg waaw ba ba ba su balu feetal sax kenn la ko tiimee di la koy di la koy tiire kenn du la ko tiimee di la koy dóor ak lu si mën doon lu loo xam ne wàllum wàllum wàllum tiire la kenn du la si kenn du la si mën a jam kii ti ti lay dox waaw essayé naa ko werante xooxaan tak tubéy waaw toog nga ma toog mm-hmm. paaka baa ngi nii waaw jamu naa si ba doyal waaw kon xam nga lépp looy def ne rek maam day am firnde mm-hmm. waaw loo mënul da koy bàyyi ña mën ku mënul bawoo lu yàqu yawa waaye sëriñ Cheikh Ndiaye njare dëgg moo mën samp daan nañ ko def ci façon bu ne waaye samp ak njare nit dawal na otoom ba foofu mënu koo am nit toog na ca village ya gën a sori woote ñu defal ko ko ngir lan teraanga walla ngir xam ne nit ki bidéewam àttan na ko samp njare dam ko dama ko dul tollooleek benn sampu si. Hmm. waaw sampu soo soo déggee lii xam ne soo gisee lii xam ne lii. lum la jox. Eh, mooy. bopp tan. waaw. bii bu ndaw la. bii bu mag la. waaw bii bopp tanu buur la. waaw tanu buur. mooy mooy chef bi waaw kii boppam la mm-hmm. kii ci groupe bi la bokk lii nag dana si def wàllum samp mm-hmm. képp koo xam ne maam danga nekk ci loo xam ne maam danga da saa jiite mbooloo mm-hmm. bëgg bëgg saa am coow mbooloo mi bari ba si sa war sa bërëbu liggéeykaay ak lépp loo xam ne maam da nga si da koy yittewoo pour mbooloo rek pour wax coow lu bari deme ne kii ci loolu lay dox da lay samp la ko jot ci kàttan yàlla suñ borom moo xam nga koy tàkk wala nga nga nga def ko sa bërëb incha allah rabbi lépp la nga fay woote dana dana dana la wuy si waaw kii ti wàllum samp lay dox waaw moom am na solo am na solo lool mm-hmm. waaw moom da da dañuy liggéey ci boobu lii mooy bopp tan sëñ bi lu ma nemmeeku fii lu ma mës gis ci nopp muy nopp gu ñuy def ci sengoor wala ci ay fas yoo xamante ni yu ñuul kukk dëgër këcc lii rek koo ci fas xanaa du rëcc waaw Lamine yii nii te wàllum noob lay dox waaw bii nobu wenn quatre la wenn quatre heures benn fan. looloo tax du fi des sëñ bi. waaw lu ma si yor du doy lii may wax ak yow nii nii nii lii ma defar nii balaa am fukki fan mu jeex. te kàttan yaa suñu borom képp koo xam ne incha allah rabbi maanaam am nga koy bëgganteel ak loo man di soxla ci nit. ñi fasal la ko ti fas gi ni gu ñuul gi incha allah rabi lépp lu mu si mën doon loon ci kàttan yàlla suñu borom ban def si li ñu si war a def. incha allah rabi dana dana sëñ bi jàpp nga ne lii fii fukki fan li muy bari bari dana jeex ci nopp. mais léeg sa du àgg fukki fan. léeg gën kaa yàgg du paas juróom-benn fan mu jeex yàlla xam na ko. te lii li si gën a yéeme sa maam nobbi bi tey suñ la xam nga mën na la kaa jox nga fas ko sa ndigg. waaye mën na la kaa bañ jox sëf ko sëf ko sëf ko. Mm. bu dee sëf bi moo gën a gaaw quoi loolu tax maam du ku ne lan koy defal ku nit kun koy defal da fekk nga wax ñu lu wóor lu leer naaj ngi dool dogal kaa mën a liggéeyal mm. waaye insha allah rabbi képp koo xam ne maam diggante sa diggante maam eh, as ndaw daf laa jaaxal wala ak mu si man doon ku ne nga koy topp rek mm. pour pour mbëggeel ak nobel xam nga nobel dafa yaatu waaw kat yàlla suñu borom lii si mun duñ ko si passé fas gii nii oh. fu nu la ko fasedee dana dana la ko jàppal te benn fan lan koy liggéey lan koy lan lan koy lan koy fas insha allah kii tu rek lay dox moom moo ko tax a jóg waaw njare ku fa dem indaale sëri ji ku fa duggaale néew kàttan doo ko fa génnaale même buñ la fa joxul garab loolu laa dégg moo tax ma ni néew kàttan loo war a mën a faj la ci jëlee ko ci say maam waaw néew kàttan garab gi laa si joxe gi yàgg naa ak man ba mu ko dalee joxe ba ne musuma kaa saase. loo ko baa ngi nii. fii fépp mi ngi fay dem ci àdduna bi. Mhm. waaw CP yi xam nañ ko. Mhm. waaw maa ngi yóbbu fépp. Mhm. kii mooy gaynde gu góor. moom laa ko tuddee. waaw garab gi nag baax na lool ñi nga xam ne maam dañuy dañuy sëy di gaaw daanu. ak ñi nga xam ne seen awra day delloo ak ñi xam seen awro dafa ndaw. waaw daf koy yokk yokk ba mu jaaxal la. te lépp loo xam ne maam dan nga da nga si da nga benn effort boo xam ne da koy def te yow. waaw amul leen loo xam ne maa mën na mën na la mën na laa metti wala la neen lu dul lu dul lu dul faj la mm-hmm. waaw moom garab gu wér a wér a wér la koo xam ne moom tamit li ma si yónnee bari na lool lool lool incha allah rabbi képp koo xam ne yittewoo na ko rek nga am problème mu sëy incha allah rabbi soo si jotee sa aajo dana faju te mm-hmm. kàttanu yàlla sun baram beneen bi si topp tamit garabu omorit gi tamit ku xam nga omorit amaat na waaw li muy def ti nit moom tamit amaat na fi ñi ngi koy yónneewaat moo ndoxum si tamit kon garab yooyu dafa nekk ay yoo xam ne baaxuti nit li mu yàq nit bari ba si asmas tamit garab yooyu yëpp dañ ko fiy joxe te kàttan yàlla suñu borom képp koo xam ne am yittewoo nga incha allah rabbi moom garab gaa ngi fii fooy mën di nekk mënaan mënaan mënaan la kaa mënaan la kaa yónnee incha allah waaw dañ fay gis loo xamante ni lu ñu mënta wax la ci cangatu njare cangat li nga xamante ni njare ñi ngi koy defar wala sang wala sax ndomb ak njare nga xamante ni boobu ba léegi daan mënuñoo def émission te luñ ci wax waaw ndomb njare yooyu ay xeeti secret loo xam ne te samay maam laa ko jëlee ñoo ko daan liggéey. bu dee ndomb ak njare gi euh, nekk na kaaraange. Hmm. moom li si nekk bari na lool lool lool képp ku la liggéey su amu chance day alaw day yàqu ba hmm. faw waaw moom bokk na ci loolu lu ab foo ab fooram. beneen bi si topp tamit maam feeg yaa ngi ak moom lépp looy dugg ak lépp looy mën di xëccu te wàllum état day sotti. Ah. waaw bu dee càngaak njare gi te wàllum ubbeeku lay dox. ñi xam ne maam seen wërsëg dafa xaw a yeex wala moo moo wala nga xaw a ñàkk wërsëg waaw ñoom càngaay njargoo baax na ci ñoom da lay ubbi te lépp looy yóot tamit da da da nga si jot ndax euh, liggéey liggéey du dox mm-hmm. nit mooy dox sama magum njariñ njariñ moom ko daaw mu ne ma liggéey du dox nit mooy dox waa yow si jëm soo doxee say mbir mën naa mën naa mën na mën na mën naa sotti nem gën a gaawe léegi càngaay gi nag moom te loolu lay dox ak parfum yi xam ne moom la war a mën a àndal su defee yooyu yëpp soo jotee ci kàttan yàlla suñu borom suñu la ko waxee defee nga defee ko ni la ko waxee incha allah rabbi lépp loo dugg dana dana soot te ubbeeku moom mooy lépp nit moom nit moom ubbeeku ubbeeku mooy lépp waaw soo ubbeekoo rek sa lépp mën naa sotti incha allah dañoo nekk nag ci cëmpaayal cëmpaalu ndaw émission bi sëñ bi Gris Bordeaux dafa am coow ca fële ne woon ca France walla ca bitim réew la ñuy wax ñu ni dafa am loo xamante ni daf ko faa def jël ay parfum ñu baal ma ci kàddu gi suma bañee wax sàcc ay parfum benn ndaw ba coow li tàmbalee jug seen diggante ñu ni ko yawa yawa am na ay audio yu génn mais loolu dafa mel ni tendance la enregistré nit wala nit def la dara nga am foo ko jaaree ba siiwal mbir mi ci koo xamante ni wax dëgg yàlla kilifa la nag mën nañu ko wax ci réew. waaw xam nga loolu tamit yéeme na yéeme na lool xam nga man yu mel noonu dama ko du farali toog daan ko yow yaa ma ko wax. Mm-hmm. waaye bi ma ko waxee ni ma ko chiffré rek maam dan koy ñaawlu tool ndax ngir tamit maam comme comme li mu nekk am mbër mbër tamit kilifa la. ti ti dëkk bi. ndax ñu ah. bari xam nañ ko te am nag njaboot. Mm-hmm. waaw moo tax na ba yu bari war na ko war na koy mën a war na koy mën a maytu. ndax sama xalaat bu gàtt daal li ma xalaatee daal man comme que moom day day day day bëri di fayoo ay millions pour man ay parfum yu yun koy tuumaal ak yooyu rek. yooyu moom dafa reetaan lu quoi. waaw dafa reetaan na nekk nekk na lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma jaaxal lool. Mm-hmm. ndax daa xam ne koo xam ne ay millions lay liggéey di koy di koy fayoo ko te génn tokkusaan. ñi koy jënd ay parfum yoo xam ne gën kaa seer pas sur million. Mm-hmm. kon loolu moom nekk na loo xam ne yéeme yéeme yéeme na trop waaye nag lu ma lu ma leerul nag moom mënu ma see wax moo jël wala wala wala wala jëlut oh. moom gën a sutura gën a am seen diggante rek waaw ndax àdduna moom lépp sutura la waaw ngi ngi ngi ngi sàmmante sutura ndax loolu rek mooy mooy mooy àdduna ban di maytoo am ñu topp sa ginnaaw yaakaar la ñu jëm nga dégg coow lu am ci yoon wi Gana Messere coow topp na ko fan yii lool waaw loolu ni ba na ngeen lim la sew laa si wax comme ni ma koy ni ma koy déggee rek noonu laa koy déggee euh, comme ni koy nit ñi déggee rek waaye li ma si wax leen moo moo moo bëriwul xëy na Gana moom dafa nekk koo xam ne taalibe Serigne Touba la. Mm-hmm. te nit taalibe Serigne moom su dee wax ba ba daanu jël rek peut-être mën naa mën naa wax lu bëgg wax mën naa wax lu bëggut a wax. Mm-hmm. xëy na moom li mu wax moom. lu mu bëgg wax la lu mu bëgg a wax la wax ndax Gana yàgg naa wax yu mel noonu xëy nit ñi si bàyyiwul xel waaye yàgg naa wax wax yu mel noonu. Mm-hmm. waaye Sëriñ moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy àdduna. Sëriñ moom mooy lépp. ndax man mii di wax ak yow mii. Euh, sama maam suñu daaro sa Njaay suñu moo ko seexal waaw mooy ñu suñu juróomeel ñu suñu tubaa seexal sama maam suñu daaro san waaw mooy juróomeel ñu suñu tubaa seexal waaw tax waxuma moom lim am ginnaaw yàlla te suñu la jóge mm-hmm. waaw ndax moo tër bi suñu tubaa ba suñu seexal ko mm-hmm. waaw man mi ginnaaw man li ma doon ginnaaw sama maam Sëñ la mhm. waaw ndax Sëñ Tuubaa defar sama sama maam ma man tamit ma ma juweeti sama ma mu wàcc ba si man waaw kon nag kon nag lépp Sëñ Tuubaa la waaw kon nag dama jàpp ne wax jooju ma wax moom noo ko jëmee rek mu jëmee ko fa te gaana wax dëgg yàlla mhm. nekk na nit koo xam ne tamit kenn la te yoon bi waaw te moom suba ba ngoon lu lu lu luy dëgg Sëriñ rek lay wax. jamono ji moo tool foo xam ne ku ñemewul ku ku ñemewul ku ku bëggu dëgg rek bëgg bëggoo dëgg. Mm-hmm. waaye jàpp naa ne moom li mu li mu wax mi li mu wax ni dara nekku si loo xam ne maam lu mën a saboote la. Mm-hmm. ak lu ak lu saboote. waaw ndax Sëriñ Tuubaa moom jàpp naa ne moom li lim am moom am na ko pare. Mm-hmm. waaw te lépp lépp sintuwaa la. waaw wax ji wax jeef nekk rek waaye lépp lépp Sëriñ Tuubaa la. waaw lépp Sëriñ Tuubaa la. Ah, ci essentiel bi lañ jëm nag sëñ bi su ma nee essentiel bi njëkkee ko ci Ousmane Omar Sall mi nga xamante ni ba ni may wax ak yow mi ngi taxaw ci kanamu juge bi ñu koy àtte ca coow loo xamante ni dox na ko ak axlu tarixa yi. Euh, Lamine kooku dañ kaa war a bàyyi. Ousmane Omar Sall. waaw dañ kaa war a bàyyi. ba ko mu ñibbi. dañ kaa war a bàyyi mu ñibbi. suba baa du ma def noonu man tamit wax li mu wax. mais li mu wax ku ko def tamit maam euh, du du du du du du maam li mu wax ku ko wax maam. te yoon nekk fi ngi ngi yóbbul ngi yóbbul ngi dem te yoon maam lu si man doon lu ne dañ kaa war a bàyyi ndax jullit la te ay jullit ñoo ko port pelente te Sénégal war ñu ni neen la daal ñu ni neenal maam lii ngi def ni suñ ko njëkkee woon waxtaan ko waxtaanu biiru néeg mën naa bi ñu àgg fii waaw na oustaz euh, Omar Sall jullit la te passé wut fu muy tooñee du jéggalu waaw ndax waaw ndax ñu ko ëpp màqaama ak martaba dong fi nekk te dañuy tooñ yàlla suñu borom di koy tuubal di leen kon jàpp naa ne am na nun doon waxtaaneek moom maslaa lii du àgg fii ndax borom njaboo la te borom mbooloo borom mbooloo la mm. waaw te lu mu si man doon lu ne maanaam dañ kaa war a bàyyi mu dem ñibbi mu dem mu dem mu dem ñibbi këram mm. waaw ndax fii nit yàgg na fee wax lu lu li ay lu li mu wax fii te mujj mujjul fenn waaw te moom moom te moom julli la te lépp maam ci lislaam lay lislaam lay lislaam lay wax mm-hmm. comme que ñoom i nee na ci biir lislaam la doon waxee ba bi ni nekk ci biir lislaam jug por perante ko loolu maa ngi koy ñaaw lu baax nan bàyyi jaambur bu dem ñibbi këram waaw lu mu si mën a doon nan ko bàyyi mu dem ñibbi waaw kilifa la borom njaboot la sëñ Cheikh nee na nañ ko bàyyi mu dem ñibbi dama bëgg nag ñu tëj émission bi ak parrainage yi Pape Djibril ak ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba ak Bassirou Diomaye fay ñoom ñett laa bëgg nga tënkal ma ko ci benn xibaar. Pape Jëriñ Fall. Amadou Ba. Bassirou Diomaye. Bassirou Diomaye. boo doon xool kan moo gën a fénq jamono ji tool nii nii Amadou Ba. Mhm. Bassirou Diomaye Faye. Mhm. ak Pape waaw Pape Djibril nag moom. bidéo mhm. moom dana dana fan yii jëm ni dana nit ñi danañ ko dégg. Pape Djibril Pape Djibril waaw. dinañ ko dégg ci coow lan. moom danañ ci coowal jàppal yéegal wàcc. waaw coow politique bi maam dana si gën a fees quoi. Ah. waaw ajaasam dana yéeg fan yi ngi jëm. Uh-huh. waaw bu dee bu dee bu dee. waaw audience bi muy jooy moom daa tammi jooy de. <laughs> non moom bàyyil tooñ. bu dee bu dee bu dee bu dee Bassirou Diomaye Faye. waaw kooku moom tamit moom nan ka ñaanal. Hmm. waaw nan ko ñaanal yaakaaram yaakaaram bañ a tas. waaw moom tamit li ma gis ci moom baax na lool. biddéewam jug na am na pouvoir mystique am na doole am na ngemb am na ginnaaw moom waaw moom nekk na biddéewam nekk na biddéew bu gën pour la isaan yi ñi mu ñi mu làngul politique gi ah. kenn sutu ko sew biddéew waaw moom Bassirou Diomaye Faye nan ko ñaar yaa su borom lafal ko lafal ko lafal ko cot moom am naa yaakaar lool ci moom parrainage si dama dégg du bari ñu ni Bassirou Diomaye Faye dañ ko ciy kale waaw xam nga politique nag moom lu ne mën na see am waaw waaye bu dee tuyuwaan lan ko jaarale. waaw incha allah rabbi dana dem président. waaw moom Bassirou moom Bassirou Diomaye waaw bu dee Bassirou Sonko Sonko Bassirou waaw xam nga jaay moom nit ku lay jaay doole am mu am doole moom lu mu bëgg def mën na kaa def mm-hmm. waaye bu dee yoon la rek incha allah bi président seel moom kenn ku ku si dëgg na ko massa waaw te su fa àggee moom dana dana àggaraay moom sëñ loolu boo ko waxee sama xel mi dee lëndëm ndax Amadou Ba mi nga xamante ne 4 millions parrainage la dajale te dara xewagul waaw xam nga 4 millions par doole président lay xeexee dafa ko neex lay dóor. waaw xam nga ñoom pour man am am nañ xaalis. Mhm. ndax xaalis moom Sénégal moom danoo gaaw a fàtte. ñoom xaalis teew mu teew rek la ñuy gis moom fàtte na lu métti li su li daan daj ci ginnaaw coono yi. ak maam xeex bi daan def seen diggante ñoom ak Sonko ba fii ba fii 2024 xam nga yooyu yëpp fàtte nañ ko. te saa dëkk bi tool na foo xam ne maam koy koy yëkkati jox ko benn 4 million rek maam mën na laa jébal boppam. su defee mën naa fàtte lépp la si ginnaaw jaay jaay ngorom. waaw ñoom daal stade bi lool moo seen saan saan tàccu. waaw moo seen saan tàccu. te nag moom euh, ni ma koy waxee li ma ko li ko daan waxee laa ko daan waxee maam jamonoy bu njëkk jee bokkut ak jamonoy léegi. Hmm. dëkk bi léegi Sénégal yi yeewu nan. waaw léegi am na ñoo xam ne faale wu ñu xaalis. kenn mënu leen a korompoté dara. waaw ñoo xam ne maam bëgg bëgg réew mi bëgg Sénégal moo leen tax a jóg waaw du mas du masa mas a xaajit duñ mas du duñ mas a jébbal duñ jaay seen ngor waaw loolu moom ñi ñi daan gëm seen bopp ba nañ gëm seen bopp waaw lool loolu daal laa xam ne nit gën a teg foofu seen seen tànk rek mm-hmm. ba incha allah rabi ba 2024 képp ku yàlla képp ku suñu yàlla suñu borom may ndam nga xam ne yow la may ndam mm-hmm. incha incha ngi ngi woote élection yi te te te jàmm ba képp koo xam ne maam suñ borom jox na la réew mi nga jël ko nga jël ko te jaam man loolu lool laay ñaan mm-hmm. waaw ndax ñun ñëpp ñun ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni neen lan waaw ñun euh, euh, Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon ngi yéene ngi yéene ngi yéene te jàmm lool la may la may la may la may la may la may la may dénkaane waaw sëñ bi damaa dégg ñu ni mbër lu ndaw nga koy laaj bu la ko indilee nga jox ko ndam li garanti ko ko te làmb da koy dëpp ci ay seconde Modou Lo digganteem ak booy Niang làmb ji kan moo yor victoire jamono ji ak kan la ay la la biddéewum jamono ji gën a jug ci kaw même bu nekkee mën nañoo dem ba ci biir làmb ji ni dëpp waaw bu dee bu dee Modou ñoom ñaar danoo xaw a danoo xaw a tolloo pouvoir mystique waaw maam non comme ça seeni rawxaan danoo xaw a tolloo bëgg-bëgg mhm. ndax bu dee Modou Lo ay mbiram ay sarax da koy da da siy dox. waaw bu dee booy ñaa ay mbiram ay sarax da dox. Mhm. te ñoom ñaar nag ku gën a baax yi sarax wala say sarax ku ko gën a xam. Mhm. mën ngaa mën nga mën ngaa je mën ngaa gañe combat bi. waaw ndax nan def attention bu baax fu ñu toll nii ñu bari mën loo lan jox favori. waaye booy ñaa tamit ku mën a daan mën loo la. waaw. booy ñaa bu génnee yenn sarax yi mën naa féete ca kaw moom. waaw ku mën a daan mën loo la laa wax ku mën a daan mën loo la man gis naa si loo xam ne tey jii su ko jëfandikoo wàllaay xasi mën loo du ko daan waaw lii man li man maa la ko wax waxoon naa ko ta ma combat euh, Balla Gaye baak Boy Niang ba vidéo yaa ngi fi waxoon waxoon naa ko ba mu ko xoolee laa laa gis li ma si gis wax ko ma ne mm. euh, Boy Niang am na sarax boo xam ne su ko defee dana daan dana daan dana daan Balla Gaye ba benn benn benn benn benn waay euh, su ma juumul Angleterre a nekk ma Allemagne ñaar dëkk yooyu benn la si nekk mu woo ma téléphone mu ne rakki euh, magi buri bàccali la waaw rakkam la ma magam buri bàccali jabari Balla Gaye ji mu woo ma di may laaj sarax boo may waxti Boy Niang pour mu su ko génnee daan Balla Gaye waaw ma ne loolu bi ma koy gis wutuma si xaalis wutuma leneen dama kaa gis noonu wax ko noonu rek waaw leneen li si des na ñoom ñoo koy jëfandikoo seen bopp walaay xasim ba nëg ni maam dugaluma si sama dugaluma si sama loxo nekkul woon loo xam ne dama si doon wut xaalis mm-hmm. waaw ba ñoom tamit maam loolu tamit nam leen ko waxee tamit ñoom tamit ñoom ñu defee ko ko waa kër boo ñaay defee lan lan ko daan waaw. loolu dafa nekk loo xam ne euh, lu may gis la te wàllum te wàllum maa ngi koy maa ngi seet te te te te wa te wàllum euh, listixaar mm-hmm. waaw mu seet boobu si koy seetee lépp lépp lu ma lépp lu ma si seetee te te listixaar bi dama dama dama dama koy gis ci côté boobu. ba lépp loo xam ne wax naa ko si rek amul dara loo xam ne mën na ko mën na kaa dindi. doomu njare lu mu ndaw ndaw ndaw doomu njare njare jàppal ndax buy dem xam-xam dëgg mooy dem noonu ci maam yàlla ci bàyyi ba ci doom yi ci sët yi loolu nag aadala la luñ fa fekk sëñ bi bég nañu kontaan nañu xam nañu ni yi tey jamono dong moo tax ngay gëj génn waaye suñu digganteeg yow démb du tey balaa boobu dañ lay bàyyi nga tàggu soppee xarit di am jàmm yeeg mbokk yi la doon seetaan doon la bàyyi xel fii ci Allô Sénégal waaw Lamine ñu ngi leen di santaat baax di leen di leen di gërëm waaw di leen di gërëm baax di leen masaw coono. Mm-hmm. waaw di waxaat ne eh, li ma waxoon sànq ni rek du wàllum eh, seet bi may def. wàllum seetu bi ngeen gis nii moom dam fii ba laween eh, laween kat saafee dama koy seet gratuit. képp ku ma woor incha allah rabi mën naan laa xoolal. waaw loolu dinaa ko baaxee dinaa ko baaxee nit ñi te yàlla tax. Mm-hmm. waaw kenn du ma woo nag maam gratuit laay ba tax na maam ngi may sonn ki appel wala ngi may teg pression nangam ah, nangam. waaw ndànk ndànk rek ndax ku ni may du taamu. waaw képp ku ma war incha allah rabi naa la jàppale xoolal la. Mm-hmm. incha allah di leen santaat baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. duñ ni gulet mu koy def waaye alhamdulilah la wax ci ki jëflanteeg moom jox ko boppam ngir rek. mu xoolal la say mbir ba liggéeyanteeg yow jaajëfal nañu ko jaajëfal bépp mboolem internet Allô Sénégal jox leen dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf